non xaaral BNS TV danoo juum BNS TV danoo juum muudu muudu muudu muudu sànq ba léegi maa ngi leen di tagg maa ngi leen di tagg ñu daan a tagg suñu jal yi xaaral. non non. kenn nangu ko barki sa barki ko nangu sama gel non non sama xaar moo suma avié suma avié laay woo suma la seen numéro ne waay barki yow man xiyaam suma lii lay war suñu barki yow man xiyaam jëlal gaaw jëlal rek suma mboor vacances soxla wu ma leen waaw suma avié. man la seen nijaay Diop waaw nijaay Diop barke bi man xiyam. nijaay Diop Fall. waa xanaa xanaa yëguloon lu xew. waaye xam xam jàmmante bi dafa bëri yëguloon li xew xanaa muudu muudu yi nekk Europe. ñi ngi ñëw déglu ma rek ñi ngi ñëw senegal pour bëgg a takki. bu avion bi léegi naa décollé ba naaw. di ndax décembre bi pour bëgg ñëw takk suñ jël yi. dëgg la. yow man xam suma waa fii dimbali ma. wax dimbali ma rek ngeen dem takkali ngeen dem ma sama gel bi. di nga bëgg ñu ñaanal la la jaw. koo bëgg. ah ndax yow da ngaa bëri eh, tax barke bi yombal xam sama jarbaat nga yow dimbali ma. kan ak ñu soxla. Eh, waxal noonu. mais loolu kañ la. yaa gën a xam ñetti junni kenn du la si may soxna. jabar te sax yow da ngaa mun doxaan. ku dul jinne jinne am nga ko. am na ku ne. te sax yow kan nan lay may soxna ni jaay Jóob. kan la ah yow waaw nga ni. mais yow lay may. mais ay jël. soxna jaay waaw lay war a soli kaw maa ni dimbali nu te yàlla tax rek dimbali nu te yàlla tax. waaye lii lan la xanaa dafa xanaa dafa am lu ngeen nu meral xanaa dafa am lu ngeen nu meral dimbali leen ma barke bi yow man xaa man maay dem man maay dem man maa man maay dem léegi nii man maay demal sama dëkk Casamance man maay demal léegi nii Sénégal Njaay barke bi yow man xaa man maay dem léegi nii Ndakaaru Njaay Ndakaaru la tëpp ca dëkk ba takki sama soxna yow du Mour Modou Mour du ma xañ sama wàll man tey ngay xam ne yow Modou Mour bokk naa ci yàlla kese barke bi yow man xaa